moom li ma ciy wax mooy ñun toujours rek ñu ngi jànkoonteeg moom parce que première taw bi la mel nii presque boo xoolee kër yi ñu wër yëpp ndox mi foofu lay jugee di ñëw fii fu mooy central bi daal au moins kon nag ah li li ñu war a def mooy en tant que juma jaa ngi nii ndox maa ngi nii loolu rek doyoon na firnde que bu tawee ba sebet normalement war nañoo def benn effort boo xam ne nii pour évacuer fi ndox mi même jouru xasida yi fii fii laa nekk nii nit ñi amuñu fuñ jaar ndax ndox mi kon nag ñëpp ñi ngi ciy wax mais fu koy adressé pour mu pour mu dimbala la ci ndox mi xamoo fooy dem même même yoonu Mbàkke dama fay jaar mu fees dell ak ndox mais boo toogee presque une heure de temps deux heures de temps nga gis oto yi ñëw oto yi communauté rurale bi ñëw manque ko mu set wecc oto yi jàll kon nag fii yoon principal la damaa jégale damaa jëlale sax oto yi fi jaar mais jumaa ji rek waroon naa tax lépp luñ mën a def bu tawee rek ñu fexe nuñ fi mën a jëlee ndox mi parce que comme canal amu fi wax dëgg yàlla waruñu fee bàyyi ndox mi muy mel nii parce que presque boo xoolee oto yi fi jaar yëpp lum lum lum lum taq-taq seen pneu yi dañuy yóbbaale salte bi ci ci ci ci ci jumaa ji parce que loolu dañ koy bañ kon nag loolu rek war naa door firne que vraiment benn autorité boo xam ne ni yaa ngi fii Touba pour man ci dara ñu ngi lay tàllal loxo ñun nag dañ cee mënul dara parce que wax dëgg yàlla waaw. mais bien sûr loolu aussi lu ñu war a def la loolu moom lu ñu war a def la parce que boo xoolee fii mun naa wax ne fii ñi fi dëkk ñëpp ay mbàkke mbàkke fi dëkk ay buso buso waa ñangeen ah ay kilifa yoo xam ne nii wax dëgg yàlla tey soo tuddoon seen tur tey jii danañ nekk ci danañ nekk nit ñoo ay kilifa yoo xam ne ñu sës rëkk la ci sëñ bi lañ waaw kon nag ñun en tant que taalibe ah ñi ngi lancé appel peut-être suñ message bi mën naa tax jàll Mbàkke Mbaay ki fi dëkk ak buso buso yi ak waa ñangeen yi ah dégguñu parce que loo gis rek maanaam boo mun ci mbir dara nga woote appel ñoo xam ne nii mun nañ laa dimbale ci mbir mi. non yàgg na man def naa fi 6 ans 2016 laa fi ñëw ba léegi saa yi bu nawet bi ñëwee nii lay mel. jeex na bu paasee bu ah loolu moo ñu jaaxal parce que un mois de màggal ngay gis démarrage su liggéey demee nii te màggalu daaw lañ annoncé woon ne màggalu ren gii ah fu waroon a taa day boo tudd dana gën a taa. parce que ci digg nawet lay doon kon nag bañ jàllee màggal gi passé rek bu 2021 bi lañ waroon a waajal lii ba nga xam ne nii du des un mois nit ñi di ñëw pour naan màggal gi des na ay un mois des na ay vingt jours des na vingt cinq jours bu boobaa luñ fi mën di defar it pour instant nii rek la waaw mais yaakaar naa ne amul du am sens daal. forage yi forage yi du pour taataay forage yi pour pour pour napp bi la. waaw ñooyu moom chinois yi ñu ngi ciy liggéey parce que def nañ fi benn suñ kanam ñi ngi defaat fii benn def nañ fi benn ci wetu armeel yi ñaare ñaare ngi fii quoi ci yoonu dend ak armeel yi parce que foofu moo gën a kii quoi waaw côté yi aussi fii yëpp ndox a ngi fi kër yi borom kër yi ne ñoom dañuy évacuer ndox mi muy ñëw fii parce que amuñu pexe xam nga boo gisee ndox munoo dëkk ak moom tey bu sa néeg fee comme man tey exemple su sama place feesoon dell tey damaa damay évacuer sotti ci mbedd mi sama moroom def noonu keneen def noonu kon nag mbedd mi ñi nga xam ne ñoo yor responsabilité mbedd mi tam jege jumaa ji daal ñooñu ñoo war a waslu seen ak waaw ngi leen nuyu bu baax di leen siyaare baax di leen ndokkeel baax euh, comme ni ko ñëpp gisee rek ni ko ñëpp xamee rawatina diggante bii nga xam ne moom moom jumaa ji daanaka mu tut diggante bu gàtt la ndox mi taa fi bari fi bëgg a dee nit ñi génn seen i kër. loo xam ne bi daanaka lay doog ko tàmbali mu metti lool ni si ñëpp xalaat nag ak ni si ñëpp yi waxee mu doon loo xam lu metti la metti gi metti nag ni wax sunu xalaat li nga xam ni maanaam moo ko waral ndox mi bari na lool rawatina dëkk tëli bii nga xam ne nag moo jumaa ji daanaka afaas la moo xam ne rue nationale la boo xam ne rue nationale yëpp yàqu na bunt booy duggee jëm jumaa ji rek pour nga jaar fa jafe lool loolu nag ne kon ni ngi lancé appel ñi nga xam noo nekk dëkk bi te yàlla dogal leen nu am ndombal tànk te war koo mën a saytu kon ni ngi leen ni ngi leen ñaan saytul lii ndax lii lu wax di yaam rafetut ak tànk jumaay Tuubaa buntu boo fëgg rek bunt boo jëm rek boo di dugg jumaay Tuubaa bala ngaa da xuus li ngeen xëble yëpp nag ñëpp te na seen bët kon nag loola moom ni ngi ran ni ngi wax ni nanu dimbali ngir yàlla yi bi suñ Tuubaa rawatina nag bi màggal Tuubaa gi jëm si mu noonu loo xam ne lu metti la lu mel na metti askan wi la bu ñëw ndax ñëw war a ñëw Tuubaa war a ñëw jumaa ji siyaare si di xuus ak jaar jaar ndox mi feneen nga mën fa jaar wër jaar ñi nga xam ne dëkkuñ si bi sax bu ñëwee war a wëri fan réer loolu nag wax na loolu war nañ seer wax balaa màggal gee gën a a dugg na nawet bi nawet tàmbali tàmbaliku daanaka la ñuy wax te màggal Tuubaa ren ñëpp xam nañ si wax set lay lay lay nekk te lii nag wax dëgg lu metti la ni ñaa ngi koy joytu rawatina nag ñun ñi nga xam ne dëkk fii Garab Ndaw Touba Mosquée ak jàkkaloo jumaay nekk loo xam ci ne gis ngeen teel ngeen seen bët ndox moo xam ci ne maanaam 24 heures sur 24 ndox mi dafay na métti na kon nag ni ngeen lancé appel ñi xam ne noonu la sëñ bi dëkk bi te war te war see leen taxaw si taxaw si lii nag balaa a weer si fële bu boobaa ndox mi dafay taxaw ndax lu yomb defar la ah, burut boobu tamit am na beneen boo xam ne mi ngi jàkkaar la waat ak ah, jumaa ji fële ca côté bële waaw côté boobu la sama kër gën a jege foofu tamit moom it na mel doy na waar lool suuf si bari na tey pot lampe yi ña ngay daanu ndax tey tey jege na jumaa ji daal image boobu daal image bu doy waar la suñ suñ sañoon nag ñu dimbale ñu ci bu baax a baax a baax ndax am nañu bëgg ci jumaa ji lool teyit am nañ ci yéene bu baax a baax teyit ndax ndox moom mel noonu ba noppi période màggal mi ngi ñëw waaw nañ ñu ci jàppale daal bu baax a baax a baax ñoom ñoom xëy def nañ effort am nañu def effort waaw ñi ma xam waaye xam naa ca kaw lay tage rek waaw boo boo gisee sax ñoom ñu bari ci kilifa yi am na ñoo xam ne dañoo tuxu tuxu nañ fi ne nii nekkaat ci yeneen kër bàyyi kër gi nga xam ne ndax dafa nangu seeni kër ndax fi ne bu tawee rek dootuñ mën a nekk ndax boo gisee ne eh, kër gii ma jàkkaarlool sama ginnaaw moom bu tawee moom gii nii nga xam ne moom mooy kër sëñ na moom bu tawee daanaka moom néeg yëpp day wale ak kër sëñ Saliou Galas Mbacke moom it noonu daanaka ñoom kenn nekku fi loolu bari na ci kii ak kër sëñ Maxtaar bu so sëñ Maxtaar si lemee waaw loolu moo tax waaye daal fii daal xam naa daal forage yi soli ci la baax na ci lool waaye bu ñu defaree forage ba noppi tëli bi daal bu ñu ko névoté woon ba nga xam dana mën a ne am naa yaakaar ndox mi du taxaw incha allahu rabbi baax na jërëjëf waay. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu bu baax ginnaaw bi ñu mbokk yi seetaan sunu site internet bi di di sant Assalaamy TV di leen nuyu bu baax di nuyu ak di ziar Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal suñ borom mu yàggal ko fi. man dëkk wér ak mboolem kilifa yëpp ku ne xam na ne dëkk bi di Touba dëkk la boo xam dëkk bu sell la boo xam ne nii Serigne Touba Xaadimu Rasuul bi mu koy sanc ci daara la taxoon mu sanc ko wàccal ilaahi maskani Touba abat mislasmiha bi jaahi xayri man abada loo xoon daara nag ak jàkk suuf si da ko ñaan suñu moom jàkk jàpp naa ne ak cellaay laa la war a jaloon waaye nawet yi di nawet bi bi mu amee jàkk naa ku ne xam ne day doog a tàmbali te ñu ngi jub màggal suñu digganteeg màggal fii ak weer lay doon waaye amul benn mbedd ci dëkk bi boo xam ne da nga fay jaar ca nit ñi duñ jànkonteeg ay jafe-jafe rawatina fii ñu nekk ci Touba de mos Touba mosquée nga xam ne suñu diggante ak jumaa ji daanaka matul tee téeméeri mètre ak lu topp gis nañ ne ndox mi doon wax yàlla bu xasee taw ba nawet bi jeex ndox mi dafay taa nit ñi fi nekk dañuy jànkonteeg ay jafe-jafe yu met waxumal dara waaye dëkku euh, odeur bi muy génn rek loolu baaxul ci santé kon nag loolu jàpp naa ne autorité yi yi nga xam ne ñoo yor réew mi ak kilifa yi nga xam ne ñoom la mun Mountakha jox seen diggante ak ak ak état bi war nañoo identifier mbedd mu mel nii. nga xam ne yoon bi yoon wu doy war la ak mbedd mi ko traversé jàpp naa ne mbedd mi ñu dëkk ñun mooy menn mbedd bi nga xam ne moo des ci lu war jumaa ji lu ñu tëliw te bu ñu ko woon rek moo am canalisation lu bëree bari dana dana dana saafara tëli bi mooy route nationale bi nga xam ne njëkk na ci dëkk bi ndax. bi bi bi raay bi ñëwee gaar mu ndaw doon wàccee fii ci fii ci station bi nga xam ne fi lañ doon wàccee bagage yi jëm ci jumaa ji tali bi bokk na ci njëkk tali ci Tuubaa kon bu demee ba ba àgg ci état bu mel nii wax dëgg yàlla war nañ cee taxaw ca gaaw saafara ko ndax suñ diggante ak jumaa ji matul téeméeri mètre ca màggalu daaw rek li fi nit daj wax dëgg yàlla doy na waar ko yaakaar naa ren lay gën a yées ndax ko xool image yi da nga gis ne mbedd ndox mi bëri na ca day yokk kon nag loolu laaj na saafara bu baax a baax ñu ngi koy euh, euh, métti du daal xëy na dëkk bi ni mu demee la waaye sëriñ bi it euh, ñu xam ne defal defar naa naam baax na waaye tëli bu àndut ak canalisation ndox mi fii taa dafay yàq tëli bi dafa dem ba tëli bi dafa wàcc ndax ndox mi fii taa moo ko moo ko moo ko wàcce kon daal laaj na ab solution daar daar màggal yi di ñëw yëpp ay màggal yu nekk ci biir nawet lay doon ay jafe-jafe yu bëri bëri lay indi kon daal ñu ngi koy mettitlu ci di ñaan yàlla xëy na suñu kàddu mu àgg ci nopp kilifa yi ba ko déggee ñu mën ci indi saafara daar daar balaa màggal gi agsi wala muy wala muy gën a jege. salaamaaleykum. yéen soxna si gis na kër gi ni mel. bari nañuy yoo amuñu fuñ toog di feexlu néeg yëpp fees naa ko ndox lu ngeen ñu ci mën a dimbali ak yooyu daal bari na lool ñoo ngi leen koy dis nag ak sëñ Fallou mi bokk nga xam ne kër gi mooy këram daan na fi teg tànkam di moo ko doon am fi ñetti soxna jóge fi soxna yi jóge fi ñun ñu ne fi nekk ay sët sëñ Fallou la ko fi nekk Mbàkke rek soo fi nekk. waaye gis nga kër gi ni mu mel yéeme na kuñ ci mën a dimbalaa nga dimbali ci ngir sëñ Fallou te ñu lépp na ci loxoy sëñ Fallou ndax kër sëñ Fallou la ndax sëñ Abo tamit gisagu ko moom ndax sëñ Abo daanaka mooy suñu kilifa ñun waaw ñëwagu fi daal waaye na ko gis daal yëwagu ko moom ñu ngi koy reyatee moom waaw yëwagu wax dëgg yàlla sama doom ci biir kër waaye dem fa di ko wax daal na wax dëgg yàlla damaa bàyyi lépp rek ci xol yàlla suñu ndax li mën naa dem ba yàlla jeexal ko te metti na lool ñun bu kër waaye kër gi rek lañ am te kër gi sëñ Fallou ñu ko joxoon nag waaye na nga ko xool nii nab bi mooy génn ci suuf gis nga bu ñu xëyaatee lii léppay feesaat gis nga daa ko bëgg fi ne bu ñu xëyaatee day fees yàlla ñu bi ba mu wàññi ñu mën cee toog ba mën a toog daal gis nga amuñu fu ñu lekkee amuñu fu ñu defee dara sam néeg de wur na sëriñ Fallou ndox kese la man dama dis na sëñ Fallou ah, waaw ñu ngi xaar rek ndigal rek bu ñu joxe fu ñu dëkkee dëkk fa ndax amuñu fa neen ñoo ngi ah baax na ah xëy na dina koy bu ko yëgee tamit baax na bu ko mënee yëg tamit baax na ndax kër sëñ Fallou kër gi moom kër baayam moom xam na ko moom hmm, ndax fii sëñ Fallou yàgg na fi nii lañ fi nekkee gone gis nga ko day fees dell ak wér gu yaram gi xam nga ne lii baaxut yooyu moom sonal nañu lool man a paket yoo garab laa jëndoon paquet bu guddee ma taal bëccëg ma jaar léegi nii sama néeg boo fa duggee garab yoo baa ngay tàkk hmm. kilifa yi lu ci bën a dimbali mbedd bi moom mooy mbedd bi nga gën a xamante ne boo doon wër Touba ba Touba daj mbedd bi ci gën a bon mooy mbedd bi te li ba li ñu gën a naqari ci mbedd bi mooy mbedd bi gën a sës ci jumaa yi sëñ Bàmba ndax boo génnee jumaa ji boo doxee benn mètre jëm ci gaar bu ndaw mbedd boobu ngay njëkk a jot mais muy noor di nawet nii nga ko filmé nii mu mel nii billaahi wallaahi taalaahi nu ko raw lay mel at mu jot nag noor nawet nag nii lay mel mbedd mi du fendi du fenn loo ci xalaat rek gis nga li ngeen filmé sànq fii tuurukaayu ndox lañ ko def dañoo mbedd mi dañ ko tuur ndox yàkkate ko ba kenn xamul mbedd bi lu muy niru te moo gën a bon mbedd fi ay kilifa fi dox di teg yi daanoo gi kenn xamul yàlla seere na ko ah mais lu ñuy xaar parce que xam bu fekkente ni kii day defar kii yàq mbedd bi du mës a jàkk mbedd bi ñu war a jóg mooy maanaam li nga xamante ni ñoom ñooy responsabilité dëkk bi ñëw jël seen matuwaay bopp ñëw taxaw defar mbedd mi uniquement mbedd bi ku tuurit ndox wala am len lu ñu fi def ñuy teg la daan mu jeex tàkk